Merci mon oncle. Alors, euh, Monsieur le Président, Madame la ministre de la Femme, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur et Madame les collaborateurs des ministres, je vous Alors, Madame la ministre, xëy na am na ku fi tudd Modou waaye ñun plaidoyer bi dugg na suñu xol et tey ñu ngi koy jaajëfal ci ci wax boobu mu wax parce que ñun ay décideurs lañ te waruñu sens insensible par rapport au maux de la société moo tax bu ñu gisee député ñëw taxaw porté porter plaidoyer boobu mënuñu ko lu dul di ko ci féliciter et di ci encourager suñu nawle député yëpp. madame la ministre alors tey damay rafetlu sa engagement pour le retour du parlement des enfants daaw dama defoon plaidoyer boobu te dëggal nga ko en commission que ne di nga ci taxaw waaye buñ ciy taxaw dama bëgg rek nga liggéey ci ak sa ministre ak sa collègue ministre de la jeunesse. parce que gis nañ ne maison de la citoyenneté day ñëw te parlement des enfants pour lutter contre les fléaux wala le manque d'incivisme le manque de citoyenneté ñaar ñooñu war nañu mën a liggéey ensemble ba du nekk effort boo xam ne dafa nar a éparpillé madame la ministre damay ñëwaat sur la protection de l'enfance bi nga xam ne dañ la ko dénk ñu am des rôles modèles ñu am des instituts modèles en matière de prise en charge de l'enfant damay jël exemple daara maam jaara tey foofu ña ngi fay yar xale yi jigéen yi ña ngi leen di jàngal ba tey ëllëg si biir ñu mën a autonome madame le ministre dama bëgg ñu jël exemple village SOS ña ngi fay jël xale yi nga xam ne seen waajur yi mënul ñi nga xam ne seen waajur yi génn nañ àdduna te doo dégg mukk kaa am foofu ma joxaat la exemple empire des enfants ñooñu nga xam ne ñi ngi jël xale yi di leen entretenir di leen yar di leen donc ñun xëy na modèle bu ñu jéggaani mën nañ ko moytu te ñu chaque fois dama koy wax il de que solution yi ñu jël par rapport au fléau de la société ñu bâtir ko sur nos propres programme bâtir ko sur no propres réalité mais bu ñu demee jéggaani engagement yeeg ñoom seen parfois dafay sooxe day mel ni copier-coller te jàpp naa ne ñun bu ñu mbas bi war nañu ne bu ñu gëmee suñu bopp bu ñu defalee suñu bopp tey yaakaar naa ne war nga mën a am empreinte booy bàyyi ministère de la femme bu ñu waxee may mun a kan kooku tey ñun suñu amee congé de la maternité moom lañ koy wax ñoom madame Aminata Mbengue Ndiaye et cetera ma lay laaj tey yow bés booy dem jóge ministère de la femme lan nga ñu fiy bàyyi loo xam ne ëllëg ci bi dina nekk identité remarquable nekk loo xam ne ministère de la femme yow en l'occurrence madame Ndeye Saly Diop Dieng moo ko fi madame la ministre tey ñi ngi à 10 ans de la loi sur la parité en tant que ministre de la femme ban évaluation nga ciy def madame la ministre la séparation des toilettes pour les femmes parce que dañuy gis ne dans les écoles souvent les femmes sont victimes d'agression les femmes sont victimes de viol et te li koy indi mooy la séparation des toilettes nañ ci taxaw ba nga xam ne ñooñu danger yooyu ñu leen di guetter ak UNESCO ni mu ko waxee qu'elle raté cinq jours de leur scolarité faute bu ñuy gis seeni menstrué et cetera donc je pense que yooyu c'est des problématiques yoo xam ne en tant que ministre de la femme war nga ko mën a jël en compte c'est bien beau de parler des financement et cetera mais bu ñu investirul ci capital humain bu ñu investirul ci suñu jàng xale yi jigéen yi bu ñu investirul ci ñoom seeni ëllëg dañuy nekk toujours di dabe tey nag loolu noonu se responsabilité madame le ministre wax nañ fi mbirum autorité parentale madame le ministre wax nañ fi mbirum euh, jigéen ñi ne euh, dañuy am difficulté ci mariage précoce yeeg cetera mais madame le ministre loolu noonu yëpp baax na plaidoyer yooyu yëpp baax na mais tey war nañu jëmmal war nañ publier le travail qui a été fait par le groupe de, de travail sur l'harmonisation des politiques du droit sénégalais avec le protocole à la de l'africaine et du droit des peuples ñu koy woowee le protocole de Maputo on a beau épiloguer sur euh, l'autorité parentale conjointe on a boo épiloguer sur des politiques relatives aux femmes mais si on ne met pas du doigt si on ne publie pas le rapport bi nga xam ne c'est des discriminations à l'égard et à l'endroit des femmes du ñu dem fen donc ñu ngi lay ñaan bés booy dem ah, comme marque de fabrique toutes les lois wala toutes les discriminations à l'endroit des femmes ñu leve ko bu boobaa jigéen ñi dinañ bëgg ñu ngi lay ñaanal bon vent comme ni ma la ko waxee commission quel que soit le bord politique bu ñu nekk jigéen bu ñu ko nommee rek dañ koy ñaanal parce que les femmes sont multitâches les femmes dañu am njëriñ pour la société je vous remercie monsieur. monsieur le ministre du travail monsieur le directeur général du budget ñoo ngi leen di nuyu di nuyu sa technicien yi nga àndal yépp di nuyu sama sœur Assi Diouf di nuyu ñaañaar di nuyu madame Dem di nuyu ñëpp rek temps bi dafa gàtt xam naa ni dinañ ma ko jéggal monsieur le président permettez-moi ma interpeller monsieur le ministre du travail dama bëgg a xam depuis kañ la ministre di ñëw assemblée député yi ak effort yi ñuy def yépp pour wax soxlawu askan wi ñu indi seen ay discours du ñu tontu benn député dem seen yoon. monsieur le président règlement intérieur de l'assemblée nationale daf ñu may trois rounds pour que ministre bi bu tontuwul député bi mu am opportunité wu delsi questionné waat ko questionné waat ko su fekkee ni tontuwu ko mu delsiwaat. su fekkente ni nag loolu lépp dañu bëgg a xool nu mu gën a gaawee ak nu liggéey bi gën a rafete ñu di ko def alors ñoom dañuy ñëw ak seen ay thématique ak seen ay discours duñu tontu benn question wu député li ñu suñu réglement intérieur may nañ ñu ko delloo madame la ministre maa ngi lay félicité ñu ko sama collègue yépp waxe ma yaakaar le président Macky Sall nag dafa xam ni yow ci social nga doon dox mu tax moo tax mu teg la ci boppu ministère bi ñu yaakaar ni ministère bu toll ni ministre de la femme de la famille ak li mu ëmb lépp dafa war a am social am solidarité nationale kon monsieur le directeur général di budget ñu di wax ni nga waxal ñu ministre du finance di du budget vraiment day indiwaat li ma noon financement bu tasaaroo bi planification bi ci boppam moo baaxul parce que ministère bi boo ko xoolee li mu ëmb ak li mu war a def mooy Sénégal boo ëmbee famille mooy famille famille mooy Sénégal mooy réew mi jërul tasaare bi mooy jigéen ñi mooy ndaw ñi mooy góor ñi madame la ministre ñuy ñëw ci mariage des enfants ñuy ñëw ci grossesse précoce ñuy ñëw ci mortalité maternelle foofu laay duggee ni le réseau population développement de l'Assemblée nationale bi nga xam comme ni ma ko xamee dañu initier woon benn journée nationale it contre la mortalité maternelle néonatale et infanto-juvénile depuis onzième législature loolu nag bind nañ la ciy lettre liggéey nañ ci autant ak direction de la famille ak direction genre je sais pas am nga compte yu ou pas waaye le réseau actuellement dañu décider dinañu ñëw toog ak yow parce que journée boobu yow yaay ki ko war a porter loolu mooy li nga xamante ni am na solo suñu dikkee nag ci harmoniser harmoniser toujours code de la famille code de l'enfant ak lu mu mën a doon madame le ministre su fekkee dañ ni 18 ñun d'accord nañ ci pour xale bu jigéen bi sëy ci ñu wëlbatiku ci biir code bi ñu ni 16 ans la waa léegi te ñun fii ci Sénégal pour nga am baccaloria il faut nga am 18 ans c'est pas obligatoire nag waaye li ci ëpp 18 ans la ñuy am te ñu ni maintien les filles dans l'école kon nañ xool est-ce que ñun coordonné nañu vraiment ak li ñu bëgg ci suñu éducation ak walla jigéen ñi dañoo wërta am ba dañoo wërta nekk ay intellectuel dañoo wërta taxaw fii di waxal Sénégal dañoo wërta mën a toog fii di tontu député yi mais loolu pour nga def ko il faut que sa njàng avancé pour sa njàng avancé il faut ñu may la nga am baccalauréat parce que baccalauréat dafa metti moo àndul a dara loolu rek dafa jar tey ñu changé loolu ndax na xam naa ni góor ñu ci bëri xam nañu ni seen doom yu jigéen yi ñoo leen gënal seen doom yu góor yi du du ci du ci ngeen <laughs> jéggal ma nag mais loolu loolu loolu leer na euh, madame la ministre may wax ci parlement des enfants parlement des enfants sama am na ba ma benn collègue bu ko wax léegi la participation des enfants est tellement important mën nañu sax ah dinañ ma